amicale des employés des pharmacies Touba et Mbacké muy kuréel gi nga xam ne nag moo ëmb liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekkee ci pharmacie yi te nekkee ci diggante Touba ak Mbacké ñoom ñi ñoo doon amal ndaje mag ni ñu ko baaxoo def at mu nekk bi yoon nekk juróom-benneelu yoon boo xam ne nag dañu koy amal ci ngoon gi nag ci la ñu tàmbali dalal délégation yi nga xam ne nag ñoo bàyyeekoo ci gox yu fasantikoo te wuute te nekkee ci Sénégal dalal bu am solo ci résidence Khadim Rasoul bi ci garage Dakar bu bi muy kër Serigne Touba bi ñu leen dalalee nag daal leen di tatagal guddi gi ñu daal di amal waxtaan bu mag boo xam ne lépp dañu ko jëmale ci amical boobee ñu daal ci samp benn kuréel boo xam ne amical national la maanaam benn bureau bu nga xam ne amical national lay doon. profité nañ ci occasion bi sax ba def benn bureau national cette année-ci donc c'est une première c'est tout le temps la ñu am mais cette année-ci on a réussi à. Euh, mettre en, à mettre en place un bureau national dirigé par les enseignes, monsieur les enseignes. Euh, mu war a am tamit yeneen ay yeneen rencontre yoo xamante ne dinañ gën a permettre ñu gën a consolider euh, vraiment groupement boobu noonu. donc réunion bi ñu def on euh, defar nañu suñu bureau national ba vraiment fi mu nekk ni li ñuy xaar rek mooy ñu ñu ñu pare fii def suñu feuille de commencer les travaux donc sur ça maa ngi leen di ñaax. ku ci am idée bu rafet boo ñu mun a euh, dolli pour ñu mun a dem ci kanam parce que parce que déjà euh, c'est nous dans nous euh, ñun ñoo ñun ñoo li ñuy li euh, xeex yëpp pour ñun la ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk j'aimerais bien parce que déjà nekk ci bopp diriger benn structure ça veut pas dire que yaa fi ëpp xel. ça veut pas dire que Yaafo mu gën a gën a kii mais quand même j'aimerais ngeen épauler waale ñu en en même temps parce que ku ci am sa xel mu rafet boo ñuy kii parce que euh, ñëpp mënuñoo jiite dañuy mën a euh, jiital kenn rek ñu topp ci gannaawam mais que jiite ñëpp la fi nekkal man damay damay damay leen di ñaax ku ci am sa xel mu rafet boo ñu mën a dolli nga dolli ñu ko comme ça yëf yi gën a mën a jëm kanam. gannaaw loola itam bi ñu xëyee suba teel amical bi nag daal di dajale ñi nga xam ne nag ñoo nekkee foofee ci suba gi nag ñu daal di koy tàmbali nag ak bernde yi nga xam ne nag moom la ñu waajaloon ngir bés boobee daal di amal nag formation bu am solo boo xam ne lépp dafay gën a ñoŋal seen ak liggéey ñoom pharmacien yi nga xam ne nag ñoo nekkee ci Touba ak li ko wër. li ñu wax naan gan moom euh, teral lañ ci xam ba mu bëgg te loolu yàlla dogal na suñu borom dimbali nañ ci ba tey jii bépp xeetu teraanga boo xam ne euh, war nañ ko jox ak gan suñu borom dogal na ne euh, defal nañ ko ba ñu keewe seen jot ba ñoom seen bopp sax loolu seede nañ ko muy suñ gan yi jóge woon Tamba Matam Rufisque Thiès ba kenn desut ñoom ñëpp kontaan nañ te ñëw ak ju njaareem Jurbel te ñooñu buñ kontaanee rek mel na ni ñun kontaan nañ ndax ñun ñooy accueillir ñun ñooy teral ñun ñooy ñun ñoo leen di jëlit yóbbu lañ ci sëñ kon ñoom bu fekkente ne kontaan nañ rek mel na ni ñun suñu objectif atteindre nañ. ñoom itam daal di yëkkati kàddu ak jëmale ko ci li nga xam ne nag mooy di bis bi ak ni mu demee. santaat nañu bu baax sëriñ bi nga xam ne yàgg moom rendez-vous te rendez bi doon rendez-vous bu exceptionnel rendez bu am solo mu doon rendez-vous spirituel te ku wax euh, sëriñ Touba wax xalifaam yi mu fiy bàyyi. te xalifa yooyu ñoom représentant wu Serigne Touba moo tax saa su nekk dañuy sant Serigne Touba euh, di ñaan yàlla bés yi ñu koy gën di mën di teewlu te lépp lu fi waay ñaan mu daal doon loo xam ne lu kawe njortam lay doon. ginnaaw nag daayira bi nga xam ne am nañ ko nuuru daare ni te sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke joxoon leen tur woowee ci dëkk bi sell bii di Touba ngir gisanteeg sëriñ Muntaxa Basiru Mbacke xalif général des mourides bi daal leen di dalal ci saal bu yaat nees kis ñi nga xam ne ñooy liggéey ci pharmacie te nekkee ci diggante Touba ak Mbacke ñu daal di amal nag ziar bu am solo yëkkati seen addiya daal di koy jébbal sëriñ Muntaxa Basiru Mbacke sëriñ bi nag daal di feddali ko la seen diggante ñoom ngir ko daal di fi nga xam ne nag moom la ñu daloon ci garage Dakar bu njëkk bi waaye nag foofee ba ñu eggee ñu daal di amal ay bernde yu am solo yoo xam ne dañ koo jagleel ñi nga xam ne nag ñoo teewoon bis bi te bàyyi ko nag ci gox yi sori. muy équipe bi ma àndaloon muy muy sama gars yi nga xam ne ñoo àndoon liggéey bi ñu jox ma seen seen i addiya bañ ànd yóbbu ko ci sëñ kon man amel naa leen cant koo xam ne seede naa ko ci kanam sëñ bi te xam naa ne loolu. loolu mooy li nga xam ne mooy sama wax jigéen ñi nga xam ne nag ñoo nekkee woon ci waañ bi ñoom itam mbégte mi nag ñu mën koo gis ci seeni i kanam dellu waat ci liggéey bu am solo bi nga xam ne kuréel gii mi ngi koy def xam nga waañ moom dafa metti waaye nag maanaam ay la yéwén bari na tuyaaba daal bari na te euh, lekk toggul doy nit ñi lekk ba suur rek maanaam gëneel li ci nekk bu ko jigéen xamoon rek dafa war di takk tànkam ku euh, mu mën toll di ko def rek ba ñëpp kontaan parce que bàyyi na gëneel te gëneel moom moom la jigéen di sàkk fu mu mën di fu mu mën saa yu xëyee mu lay sàkk mm. kon nag loolu moom bànneex la ko ñun yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo tey di ñaan yàlla yal nañu ko yàgg teewe yàgg ko def te at mu jot nag ñu yokk ci ba yëg ko ci barke Seydina Mouhamed Seydina Aliou Ndiaye moom itam yëkkati kàddu ginnaaw loolu itam ki nga xam ne nag moo jiite kuréel gi di sant ak gërëm ñi nga xam ne nak ñoo jàpp ci bis bi nga xam ne moom la amicalu employé yi pharmacie nekkee ci Touba doon amal daanaka président wax na ko ak commission yi nga xamante ni ñoo gën a faar si genre bi wax na ko donc boo xoolee manifestation bi ñu am tey wala rencontre bi wala réunion bi ñu am wala ziar bi ñu am ren donc dafay doon ab tànk dafay doon ab euh, njàngat si li nga xamante ni jot nañ koo def muy juróomi at yi passé ren boo xoolee dañ koo yokk si lépp zaahir wa na te loolu nag ñin si jiital mooy euh, docteurs yi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyal ñu nekk suñ ay collaborateurs Euh, comme ni ko président waxee mun ñoo def dara si suñ coobare te laaj ñu leen ci seen consentement maanaam ak déggoo am ci suñ biir te déggoo googu noonu nag mu indi lii lépp ndax suñ demee ba am sañ-sañu nekk ay collaborateur pharmacien nekk si ñoom donc ñu jox ñu liberté bi tamit ak sañ-sañ bi Euh, lépp la nga xamante dañ koy def ñu mën leen see laaj na aval ñu jox ñu si ay suggestion jox ñu si ay conseil ñu appliquer loolu je crois que ren euh, jàpp nañ ne amicale Touba Mbacké euh, nekkati na exemplaire si Sénégal. muy daayira boo xam ne nooru daara yi ne la tudd ñuy amicale bi ñi ñi jaay ci pharmacie yi suñ suñ seen moxtaar tuddee woon nooru daara yi ñu ànd ko ko leen te occasion boobu it danañ ci dellu si di sant ñi nga xamante ni tey ji ñoom laa àndoon ak liggéey bi ndax man lañ jiital ci daayira bi nga xam ne man damay dem ci ñoom di leen soññ la ne di leen sonal ah lu ne ma ànd kook ñoom ba tey ji ñu atteindre suñ objectif ba tey ji liñ jébbal suñ àddi sëñ bi euh, kenn ku ci nekk bi ko waxee rek yow gis nga ne loolu vraiment travail la boo xam ne bu euh, ñu son wala ñu sàggan duñ ko mën kon loolu ak cant la goo xam ne man sama bopp en tant que jëwriñ dama leen koy seereel mu nekk nag ndaje mu am solo moo xam ne nag at mu jot dañu koy amal amicalu emploi yi nga xam ne ñooy liggéeyee ci pharmacie yi nekkee ci diggante tuubaa ak Mbacké nekk beneen jéego boo xam ne amicalu emploi yi di pharmacie yi nekkee ci diggante Touba ak Mbacké tegati nañu ko waaye itam ay naal yu am solo yoo xam ne mu ngi ci seen kanam lépp rek ngir njëriñu askan wi